ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy taxaw ci kilifa goo xam ni bu yàgg la ñu bëggoon wax ci moom li jiitu génn àdduna am liñ naan kuy def lu baax doo ko waaj génn àdduna Cheikh Mouhidine Samba Diallo daf ñu jàngal lu baree bari. ndax comme que jëmm la joo xam ni dayoom juddoom ak jaar-jaaram du looy fekk ci ay archives wala dem ci bibliothèque mun koo liir ngir baaxee ko askan wi. avant suñu borom diko jël dañu bëggoon déplacé wu seeti ko sañ bambara def ak interview gëstu la mu réalisé en tant que kilifa diine tasaare ko ngir sénégalais xam dayoom ndax biñ koy découvrir benn vidéo bu gàtt bu ñu envoyé la woon xamuñu ko woon ñu dem ay gis ni kilifa niveau non seulement dafa jéggi dayo mais mbir ñu woon sénégalais yu ci bari xamuñu ko woon. ñu YouTube gis ni ay intervention audience yi ñu daan jël vidéo yooyu def ci ay montage résumé ko ci ay thèmes 10 minutes dugal ko suñu chaîne ngir sénégalais yi découvrir patrimoine vivant bi nga xam ni dañ ko war a ràññee malheureusement vidéo yooyu yépp dañu mujj supprimer ko ñu bari dañuy demander an vidéo Cheikh Mouhidine Samba Diallo yu nga doon partagé dafa am beneen chaîne YouTube buy publier ay waxtaanam moo doon signaler vidéo yooyu noonu te ñun bu ñu gaal woon supprimer ko suñu chaîne YouTube daf ñuy sanctionné jaruñu ci attardé wu amul solo xëy na tey la ñu am occasion pour leeral mbir yu ni mel pour ñun fierté la waroon nekk kilifa gu doy ni Cheikh Mouhidine Samba Diallo di sénégalais yu ci bari réeree ko mbir ndax modestem ak wàccee boppam nga dem ba gis ne kat gars yi ñi ngi intéressé wu bu baax a baax ci ay waxtaanam mais sant yàlla ndax lenn ci suñu objectif atteindre nañ ko la preuve bi mu génnee woon àdduna ñu bari dañuy bind message di ñu jaale pour ñoom dafa am lu ñu bokk ak sëñ bi naan ñu seen chaîne bi laa ko découvrir ba dem di télécharger waxtaanam kon dañ ciy sant yàlla bu baax a baax donte nag jàpp nañ ni Sénégal jariñoowul dëgg-dëgg xam-xam bi mu amoon ndax moom homme de solution la woon bari woon ay facette kontantewul woon rek ci kilifa diine laa mi dafa gëmone alxuraan bii suñu borom ko fi rek ngir ñu tari dongo yam ci dafa war a impacter suñu dund mbuti ci nekk moo xam ci wàllum science ci wàllum nekkin ak ku ci nekk lan nga war a jëriñ sa communauté ci li la cheikh samba nekkoon Bala ñu ñëw ci taxaway Cheikh muhyiddin Samba Diallo ak limu mu lepp dañuy aborder d'abord benn mbir boo xam ni après lañ ko découvrir ndax depuis lors ci ay gëstu lañ nekkoon ndek li kilifa gi doon waxtaan ak ñun yépp di ñu wax ci yàlla di waxtaane yeneen kilifa diine yi di leen yëkkati ca kaw daf ñu doon nëbb boppam waxuñu woon mooy kan ndek ci walu juddu Cheikh muhyiddin Samba Diallo dafa bokk ci njaboot joo xam ni keneen ku mu doonoon yow koy bàkkoo foo toog di ko ngir amaana yokk sa daraja te muy nag lu jara tiitaroo moom Cheikh Mouhidine Samba Diallo sët la ci Seydina Jaafar ibn bu Talib Jaafar di frère yonent bi ndax seen wajuru góor yi bokk rax ci doolu ñoo yarandoo ci même famille mu bokkoon aussi ci ñi njëkkoon gëm yonent bi jamono ji lislaam di door a wàcc mu metti woon lool ñenn ñi daañu nekkoon sant Diallo bi fan la bàyyeekoo loolu lépp daan ci ñëw maanaam naka lañu jóge jógee Màkka jaar Éthiopie dem Palestine Égypte Tchad Mali ba Sénégal précisément ci dëkk bi nga xam moy Sañ Bambara loolu lepp daan ci ñëw way kan moy maamu Cheikh Samba Diallo bi di Jaafar Bugus gëstu histoire ñu newoon ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ñi sang bu tedd bi njëkk a julli mbolo jamono gi wa Quraysh taxawé temm ngir sakal pexé yonent bi mom Jaafar dafa bokkon ci àndandoom yi taxawon temm ngir ar ko ci pexé noni légui nak mom Jaafar dañoo demoon ba jëmi jamono mu bokkoon ci ñi yonent bi joxoon ndigal ngir ñu gàddaay dem Éthiopie fii nag la seen tasaaroo tàmbali ba sañ bambara bu Cheikh Mouhidine Samba Diallo parcours boobu nag lañuy leeral pour wan leen li kilifa gi mënoon tiitaroo te mosu ko wane. bi maama bi di Jaafar ñëwee woon Éthiopie ci ndigalu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu am fa ñetti doom kenn ki ñu naan ko Abdoulaye comme que ñoom daawuñ toog benn bërëb. dañ daan wër ngir tasaare diine gi mu dem ba Palestine moom Abdoulaye am fa doom buñ naan Mouhamadou Lamine Mouhamadou Lamine boobu noonu delluwaat màkka ci dëkku maamam yi laataa muy dégg benn branche ci lislaam buñ naan soufisme wala boog tasawuf mbootu diine gi lay permettre ngay daj suñu borom di ko yëg wala ngay xool sa bopp sax di ci gis yàlla di jaamu suñu borom di ko yëg di ko daj ci anam gu ne lii moo yóbbu Mouhamadou Lamine Bagdad ngir gis Cheikh Abdou Khadir mu jàng fa lu bare bari wëlbatiku jël soxna doomu Cheikh Abdou Khadir Jelaani buñ naan Faatumata Zahra gannaaw gi ñu dem Égypte njaboot gi di gën a yaatu moom Mouhamadul Amin bu Abdoulaye ibnu Jaafar am ci ku naan Yaxya Yaxya jur ku naan Ismaïl Ismaïl jur Moussa njaboot gi di gën di yaatu bañ am ci kuñ naan Ibrahim ñoom ñëpp day sutu Seydina Jaafar moom Ibrahim nag gannaaw bàyyi maamam bàyyi ko Makka dem Éthiopie jaar Palestine téere ji Bagdad dugu Égypte Wur sudan Tchad ba Niger moom Ibrahim moo tukki ba teere ji Mali ci empire pël buñ Masina fekk fa benn buur buñ ñu naan Ilo Diallo mu def ay miracle ba buur bi na ko yow dootoo dellu mu ne ko rek mooy tax ma mën a toog ko dugg ci lislaam buur bi nangul ko loolu noonu ba noppi may ko doomam bu jigéen moom Ibrahim gannaaw gi la sanc dëkk bu ñu naan Jafaraabe mu intégré wu ci pël yi njaboot gi di yaatu doom yi juddu jël seen sant yaay muy jàlloo ndax ñoom naar yi amuñu woon ay sant mais comme que Afrique la ñu nekk doomu Ibrahima yëpp sant jàlloo doon ay pël di ko làkk mu am ci kuñ naan buubu jàlloo moom buubu jàlloo moo jur Thierno fa Samba Diallo di maamu Cheikh Mouhidine Samba Diallo direct. moom Thierno Alpha Samba Diallo moo jógee Mali ñëw ba kaw Kaolack précisément ci dëkk bi nga xam ne mooy Sañ Bambara. mu am fa doom bu ñu naan Thierno Ama Diallo mi nga xam ni mooy jur bu góor góoru Cheikh Mouhidine Samba Diallo Sañ Bambara doonul dëkk bu dara amutoon Thierno fa Diallo ne bu soobee yàlla lépp dina fi ñëw waaye ñun ñii ñëpp duñ ko fekkee boobu mu ngi prédire ñëw Cheikh Mouhidine Samba Diallo ak li mu nar a ci dëkk bi. lii ñu leen di expliquer lépp nag kilifa gi mosul toog ci bërëb di ko waxtaanee sët la ci yonent bi te mosu koo waxee mosu koo doxee buy ay mami jambour lay waxtane kun li leçon de modestie la bu ñuy jangal mom ay connaissance am ak i jambour lay gëna promouvoir ke mom juddom ak fam bok li jàngat bu reey reey la manam ku wacce sa bop suñu borom yëkkati la Cheikh Muhyiddin Samba Diallo nak premier objectif am mo tegu d'abord ci tanki wujurum bu góor ak imamam moy jangal jami sin diine ci la nekk ci dara ji di xam ne téere wu seel wi mu dem ba gis ne xale yi kat soxla nañ yaatal seeni njàng ak seeni gëstu mu tàmbali nag moderniser mbir yi ci mbay mi def mu réussir ba tabax ñetti salle de classe yoo xam ni moom dong moo jàngale di joxe alarba. mais doyul woon gis na ni ak rythme bi muy demee li mu namb dëgg-dëgg du ko matale ci xale yi mu dem fekk benn àll bu kenn dëkkul tuddee ko medinatul Jeylaani ngir delloo njukkal Cheikh Abdou Khadir Jeylaani bi wan maamam Mouhamadul Amin ibn Abdoulahi ibn Jaafar yoonu tasawuf mu def fa ay toolu centaine d'hectares yoo xam ni dina ko permettre bu am autonomie maanaam moom boppam du dépendre ci kenn ba noppi mën a financer projet yi nga xamante nii namu na ko biir sañ bambara mu fay bay ceeb dugub ñebe gerte maanaam lépp lu doomi aadama di consommer xaalis boobu noonu tukkee ci mbay mi ci la tabax école bu rëy rëy boo xam ni am na lu toll ci juróomi téeméeri ndongo moo xam élémentaire moyen ak secondaire ba noppi wut ay enseignants pour jàngal xale yi anglais français ak matière scientifique yi gannaaw bu ñu mokkale alxuraan ngir gannaaw bu ñu tàggatee ndaw mi ci diine ba mu sàlloo mboolem jikko yu baax def ci moom ragal yàlla duñ ko tëj dañ koy permettre mu ubbeeku ci àdduna bi xam lan mooy science mooy itam di ko gëstu ci làkk bu nekk lii moo newoon vision Cheikh Mouhidine Samba Diallo jëmale ci xale yi. ku éducation wax wàllum dund wax également mbiru santé Cheikh Mouhidine Samba Diallo réussir ba mettre en place ben hôpital bu ñu estimé à plus de 100 millions tuddee ko Zeynoul labidine Diallo ngir lepp lu askanu Sañ Bambara am ci tawat ñu mën leen a taxawu bërëb bu fajukaay bi amay laboratoire pour échographie walum radio ñi amé problème bu bëñ ñi soxla hospitalisation famille tolu digënté pharmacie manam lepp lu bërëb bu fajukaay di yittewoo Cheikh Mouhidine Samba Diallo gis ni itam jigéen ñi war nañ leen gëna bayyi xel ndax souvent bu ñuy wax walum tàggat walum sàkku xam-xam góor ñi lañu ñu njëkk xalaat mu créé benn centre boo xam ni jigéen yi dong lañ ko jagleel maanaam ñi nga xam ni dem nañ ba doon ay mag mais seen njàng amaana soriwul rax ci dolli amuñu métier mu teg benn programme boo xam non seulement dañ leen di jàngal diine waaye tamit yeneen langue mais aussi dañ leen di former ci walum couture walum togg ak yu ni mel ngir ñu mën dem ba seen fi bopp mën autonome mais bu ci loolu mu neex mais dafa jël kilifa diine yi Sénégal ku ci ne mu jël sa wajur bu jigéen tuddee la ci centre boobu ñuy former jigéen yi am Buso Fawadu Wele ak muy hommage muy rendre yu yi nga Cheikh Samba Diallo également ku science dafa ubbeeku woon ci yeneen xam-xam ndax dafa gëmoon ni ñun bu ñu méngoog suñu jamono rawatina Afrique duñu sonn ndax potentiel baa ngi fi. tey boo jëlee coowul courant bi nga xam ni chaque jour mu jur fi problème moom da ko régler définitivement infrastructure yu baree bari yu mu taxawal énergie solaire la ko équipé ba ci daara moderne yi mu taxawal la majorité ay panneaux solaire ñoo leen di fournir courant. beneen mbir bu mu régler woon biir sañ bambara mooy coowul weer feeñ naam feeñul ndax li ñu leeral foofu mooy mom bu weesoo kilifa diine gi mu don astronome la won dafa intéressé won trop ci li xew ci jaww ji mu gis ne walum science mënu na régler lu bare bare ci suñu réeroo ndax alcorane ci bopam rek science la ba tax na bu wéru koor jupsi dafa daan gadu teleskopam am di sentu selon fi jamono tollu ndax asaman si amna na nu muy mel bëtu ne dong du mëna gis weer wi ba na daf koy sentu mu jàppoon ni buñu depp won ak suñu jamono zone yépp dañuy adopter même pratique yi ben courel national di piloter su ko defee coolu weer feeñ naam feeñul jeex Sénégal définitivement lii ci solution yi Cheikh Modine Samba Diallo proposé woon la tey fa mu nekk li wér te wér mooy am na fierté bu rëy ci gis doomi Sénégal ci mel ni Maram Kairé àdduna reconnaître seen mën-mën ba leen di dénk ay mission di leen tuddee ay mbir ba yeneen xale yu ndaw di ci intéressé wu ñoom itam Cheikh Modine Samba Diallo dafa bokk ci précurseurs yi sénégalais yi njëkk intéressé wu ci wàllum astronomie dafa fekk ni rek ñu mel ni moom diine moo leen gënal lu ñu musaanaam def na lu ëpp juróom fukki réew ci àdduna bi yëpp ànd naag Cheikh Anta Diop voyage bu baree bari ndax ñoom ñaar ay wulëre lañ woon mais fépp fu mu mënti dem dellu ca daara ja xool toolam ya dajale mbooloo mi di laay biir moo ko gën lu mënti am dafa servir lislaam servir communauté am ba ni ko suñu borom di jëlee. li ñu métti rek mooy liñ ko xamul laata muy dem ñun personnellement dañ soppoon. donte am nañ yaakaar gu rëy rëy ci ginnaawam ndax ki fi bàyyi muy Cheikh Ibrahima Diallo teggewul fa bàyyam tegoon tànkam am nañ yaakaar ne njaboot gi ñoo ngi xool ni ñuy tëggee li fi bàyyi ci ay livre ay documentaire ngir fu waay mën a nekk mën a jariñu ci njàngaleem ba ci modèle de développement bi mu adopté Sëñ Bambara jëlee ko ci benn niveau bi ko maamam bàyyi woon yóbbu ko ci beneen standing lii dafa mérité ñu bind ko ci ay programme di ko jàngale ñu xam dëgg-dëgg lan mooy développement communautaire ak naka lañ koy defee ñu mel ni moom nag chance bi ñu am ci ñoom mooy bàyyi nañ fi ay vidéo ay audio ay réalisation yoo xam ne patrimoine la fii ba cent ans jëm kaw ay génération dañ ko jëriñoo benn waxtaanam boo déglu jàng ci lu musul xam parce que dafa polyvalent woon jël ay waxtaanam di ko décortiquer benn par benn xajul sax ci benn vidéo ay épisode lay doon xanaa dafa fekk ni mënul ñàkk ñu ñëwaat ci moom bor buñ ko amee loon la mais waxtaanee Cheikh Mouhidine Samba Diallo xajul sax ci benn jàngat na ko gaa yi dem gëstu di ko taataan ndax jaanam wàcc na dafa accomplir mission ci kaw suuf xanaa di ko ñaanal suñu borom dëkkal ko ci këru àjjana yi gën a kawe te taas ñu ci barkeem kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.